Tënkum xibaari bis bi ci Ali Imran TV ak Mor Mbaye. asalaamaaleykum mbokk yi tey la àjjuma fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmmu atum junni ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent yemoo ko fukki fan ñeent ci weeru octobre atum ñaari junni ñaar fukk ak ñaar tënkum xibaari bis bi ci Ali Imran TV li ci gën a fés. dañu koy doorek rek jàngalekat ya ca jàngukaay ba ñu duppee Issa Ruuxu ca parcelle ñoom nag dañoo dakkal njàngale ma la ko waral nag mooy ñàkkum ndox moo xam ni daal nemmiku nañ ko ca jàngukaay ba nee ñu nag liggéey ya ñuy amal ca berte ba moo dog seen tiwooya ba tax ñum ndox jàmbur yi ñu fal yees ca ngombulaan ga ñoom nag eh, woon nañu leen eh, tey jii ngir ñu door seenub liggéey foofee ca ngombulaan ga mu mel ni nag ay woy ndare yu bari daal ma nga leen di xaar yoo xam ni tey jii war nañu ca sëgg ñoom jàmbur yooyee lëñ ko càmbar ko nuy yaakaar rekk ni nag bi yoon eh, lépp dana am ci jàmm ak dal Moussa Bokar Thiam di jëwriñ ji ñu dénk jokko bi ak xarala yu yees yi àdduna démb ca jafe-jafe ya am ca kër gi di la poste moom nag daal ma ngay dalal xeli liggéeykat ya nee na nag ña ngay amal ay waxtaan ak xooli pexe ngir kër gi di la poste mëna génn ci jafe-jafe yi mu nekk mbootaay gi ëmb liggéeykat yi RTS yi ñoom nag yóbbu na nëpp njuree ca OFNAC ngir rek kalaame njiital kër ga Racine Talla ci ŋàbbin wu bon woo xam ni daal nee ñu moom la ŋàbbe kër ga rawatina nag euh, na mu doxalee ca euh, ndaamar ya nga xam ni moom lañ ñu doon séddaleeg yu ni mel ñoom nag euh, ña ngay woo njiitum réew mi makki Sall mu taxaw ca seen kër googee laata muy gën a suux nee na nu daal njiitu réew mi na daal di jël ay matukaay ca kër googee di RTS lu ko moy rekk dana nërmelu nu daaneele ak àtteb uh, uh, Kaliphone sàll ci coow li dox ci digganteem ak soxna soose ñuy wax Adja Euh, ëttub atekaay bi nag démb génn na dogalub daan Kaliphone Sall moome juróom benn weeri kaso yoo xam ni wenn wa lay tëdd euh, ñay layal Adja nag nee ñu ñoom tekkee gunu seen ngemb euh, dana nu wëyal daal topp ga ci yoon ngir it ñu mën ko daan ci wàllum siif mbokk yi lii mooy li fi ruusoon ci tënkum xibaar bis bi ma amoon mbég mu rëy doon leen ko jottali ci Ali Imran TV te di leen dig daje ëllëg ndem soob na yàlla. tënkum xibaari bi ci Ali Imran TV ak Mor Mbaye